Euh, société bi nekk nii muy société des mines du Sénégal moomeelu askan bi la euh, mooy société bi nga xam ni lépp loo xam ni ci wàllu mine état du Sénégal am ci wàll ci société yi société bi moo ko fay teewal boo leen seetloo ni euh, changement yi nga xam ni am na ci wàllu mine surtout ci li ñuy tuddee sunu ressource naturelles yi am na changement bu rëy bu mu am mooy en 2016 gis ngeen ni am na coppite bu am ci constitution bi buy wax ni ressources naturelles yi askan bi moo ko moom ñaareel ba gis ngeen ni tamit ni ci wàllu lu ñuy tuddee transparence ak bon gouvernance euh, Sénégal euh, am na kuréel gun bokk mooy ITIE ITIE mooy kuréel gi nga xam ni état du Sénégal société yi ak waa société civile fa la dajaloo pour saytu lépp loo xam ni ci wàllu mine information bi jóge ci société yi baa ci état bi kuréel googu tamit euh, at bu jot dina génn ay rapport rapport yoo xam ni euh, ñeenti pàcc yooyu baa ñetti pàcc yooyu nooy ànd euh, valider information yi nga xam ni ci lay état bi di joxe ba société bi ñëwee kon danoo nekk ci euh, dynamique boo xam ne ci réew mi euh, information pour askan bi dafay am solo information pour askan bi dafay am solo rawatina euh, société bi nga xam ni moom mooy société des mines du Sénégal te yéen muy nun muy askanu Sénégal yëpp lépp lu moom ba seen wàll ci wàllu mine mun noo ko yore donc loolu def naa ni euh, dañ ci delloo njukkal président Macky Sall moom indi ay coppite yooyu ci biir euh, secteur des mines donc société des mines bu Sénégal SOMISEN lépp loo xam ni état du Sénégal euh, dugg na ci ci wàllu mine bu dee lu ñuy exploité la nun paaru état bi société bi moo koy gérer ministère des mines bi nga xam ni et de la géologie euh, ministre Omar Sarr jiite ko defe naa ci euh, coow li nga xam ni am na euh, kenn gënu kaa mën a féete ci joxe information bi nga xam ni mooy information bi ne yaakaar naa ni jot ngeen communiqué de presse boo xam ni jóge na ci ministère bi bii leeral li nga xam ni ci wàllu li ñuy waxe ci jamono ji mooy affaire u jamaa nun nag sunu wàll ci wax ji du lenn lu dul benn leeral ni nun société des mines du Sénégal comme que lépp loo xam ni état bi am na ci participation nun dañ cee am wàll nun amul benn société boo xam ne ma ngi exploité diamant fii ci Sénégal boo xam ni société des mines bokk na ci benn kon loolu day firndeel ni euh, Sénégal fi mu toll nii amul société buy exploité jama ndax su amoon société buy exploité jama état bi dina ci am wàll te bu ci amee wàll nun ñi fii dañ koy yore instant yu toll nii yi ñuy wax nii lu mat ci fukk ak juróomi société noo nekk ci réew mi di liggéey nekk exploitation te état du Sénégal am ci wàll société yi ñii or la ñuy exploité ñii phosphate ñii zircon kon ñu jàpp ni euh, état du Sénégal SOMISEN bi nga xam ne ñun noo fi nekk amul benn société buy exploité jamaa fii ci Sénégal jamaa nag euh, bu amoon Sénégal nu exploité ko njariñ lay doon te bun defoon recherche tamit gis jamaa it dinañ war a sawar lool pour exploiter mais damaa bëgg tamit ngeen jàpp nii Euh, Sénégal recherche yi nga xam ni jot nañ kaa def te ban koy def boobu fekk na sax boobu moomagunu suñu bopp boobu presque ci début 1960 avant sax loolu jamaa yi nga xam ni jot nañ ko faa for noo ko for ci biir ci biir fleuve Falémé tubaab bi fi nekkoon doon euh, def ay mission de recherche noo for ay jamaa ci biir dex bi jamaa sooy xool ma ngi nekk ci ay profondeur maanaam xootaay ba muy tekk ci biir suuf dina toll ci lu tëll toll ci presque ay 200 kilomètres ci suuf pression yi nga xam ne ak température yi nga xam ne mooy waral nga mën a am jamaa ay 1000 degré te pour jamaa nga mën kaa am fii ci Sénégal dina jafe lool ndax ban dalee seet boobu ba léegi ci wàllu géologie muy mission yi ñu fi def depuis 1911 sax laay wax ba léegi nii amul benn yoon benn yoon bu nu dis fii ci Sénégal ab xeer bi nga xam ni moom mooy waral boo gisee xeer bi nga ni kon jamaa ma kon xeer bi tax nuy am jamaa fii ci Sénégal amu jamaa yin foroon ci jamonoy tubaab yooyu. ban ko gëstoo ndax jamaa bokk na ci minéral yi nga xam ni noo gën a dëgër maanaam tey jii suñ doon bërëngu ndox mi di koy yóbbu muy wër mën naa toog diir ay ati ati ati at du mën a changé ndax dafa dëgër ban ko xoolee gëstu ko jamaa boobu mu ngi jóge Fuuta Jalon Guinée jamaa yi am fii ci Afrique Afrique de l'Ouest moo nga nekk diggante Guinée Sierra woon ca booru frontière boobu kon roche bi nga xam ni moom mooy tax nu naan fii Sénégal daan euh, fee mën a seet baa gis jama roche boobu amu fi euh, su doon am fan ko gën a yaakaare mooy côté Kédougou fan ci côté Kédougou am na lu mat euh, ñetti bërëb yoo xam ni fekk nañ fa jamaa alluvionnaire mooy maanaam jamaa bi nga xam ne ci biir dex gi la woon waaye amul amul ci biir suuf si mooy wasangara mooy ilimalo ak euh, bandafasi bandafasi tuuti ci suuf te yooyu yëpp booy xool ci booru frontière ba la ci booru fleuve donc pour lu jàpp tënk ni diamant bu nuy exploité amul ci Sénégal xeer yi nga xam ni mooy waral mooy waral boo seetee dis diamant côté Kédougou lan ko yaakaare te amu amul beneen gox fii ci Sénégal Sénégal wër këpp amul benn gox boo xam ni kenn dina jóg maanaam boo jàngee géologie di nga jóg nga ni dangay dem foofu pour pour seet jamaa donc loolu yaakaar naa ni euh, baaxoon na nu leeral ko pour nit ñi xam ko waaye nag buñ amoon jamaa suñ réew jël ndax koom-koom lay indi yokkute te dindi ay xëy pour ndaw yeeg pour ñëpp comme nag jamaa amul fii Sénégal tekkiwul ni dañuy toog rek ni jamaa amul looloo waral euh, ci programme yi nga xam ni ministère de mines da koy am programme yooyu da bokk nu ni duñu yem rek ni amu fi waaye nanu gëstu nanu seet xëy na xëy na nu am beneen information ba leneen loo xam ni dina mën wan wan ni lii am na fi loolu moo tax ñuy joxe ay autorisation recherche ay permis de recherche ba li ñu tuddee autorisation de prospection autorisation boo leen xool ci wàllu su suñuy suñuy euh, suñuy seet booy ñëw di def recherche bala ngaa def recherche da ngay demander autorisation prospection autorisation prospection mooy këyit gi nga xam ni daf lay may doo commencé gum recherche waaye mën ngaa commencé di seet di xool lan moo nekk ci biir suuf si loolu ci code minier bi nga xam ni moom moo nekk fii ci Sénégal loolu en sax directeur yi noo koy signé kooku ministre sax du ko signé parce que amul benn droit presque obligation bu rëy boo xam tan la koy jox lu dul demal nga wër nga xool soo demee ba dis benn bërëb nga yaakaar ni fii war nga fee mën a def recherche nga dellu si waat loolu lañ tuddee autorisation de prospection autorisation de prospection directeur moo koy signé boo jógee ci autorisation de prospection te zone bi nga xam ni fa nga jëm mu nekk zone bu la amal njariñ zone boo xam ni yaakaar nga ni euh, li ngay def soo ko defee xëy na nga gis xëy na doo gis parce que li ëpp ci euh, zone suñu jël 100 zone ci àdduna bi suñu jëlee téeméeri bërëb ni dañuy seet jamaa benn rek ci lay feeñ moo tax sooy xool ci àdduna bi presque pays yi nga xam ni jamaa am na fa li ci ëpp mu ngi toll ci fanweer ak juróomi dëkk donc soo jógee autorisation prospection da ngay dem fi ñuy tuddee recherche recherche ci ngay commencé nag di commencé am na convention li na ngeen tuddee contrat minier bi nga xam ne ministre moo koy signé ak ki ko soxla loolu su amee ci la ñuy signé lu ñuy tuddee permis de recherche permis de recherche président de la république Macky Sall mënu kaa signé yoon mayu ko ko te ko signé permis de recherche. ministre moo koy signé te permis de recherche soo ko amee mayu sañ-sañ nga ni da ngay exploiter donc ba jamono ji nga xam ni soo leen demee ci ITIE wax naa leen sànq ITIE information yi mu leen di wax nii boo leen demee ci ITIE di leen koo fekk soo leen xoolee rapport ITIE bu 2016 ngeen xool rapport ITIE bu 2017 ba 2019 di ngeen ci fekk turu société yi nga xam ni. jox nañ leen permis état bi signé na ak ñoom convention nu war a def recherche mais ci permis yooyu ak ci convention yi président Macky Sall amul bu mu ciy signé bu fekkee même ca ba nuy xool naan dossier bi ndax baax na ak baaxul ca ba ñuy négocier ak ba nuy signé permis de recherche